mais tey ban yëg-yëg mu bëree ba pare contre ma Modou Lo dugg seen biir di leen nuyoog yooyu non mais kii suñu frère xanaa gisoo flambeau bi xanaa gisoo saa yu plateau sant Fatick sant Mor sant Wandaan sant Papis non ñu piir rek ñun piir lañ quoi te kii suñu frère la kii frère de sang la quoi yaa ma gën a xam waaw mais bëgg ngeen daal non ci bëggoon dëkk kenn merewu ko kenn merewu ko bien waaw nice nice kenn merewu ko yàlla yaay sama iPhone bi kii man awma complexe moom moom laay toogal di ko laaj lu ma neex waaw ñoom daam daam soo frère. ça waaw la. ñoom laay VIP gars yi. waaw ñoom dafa leer. mais mais ñaa mais grandeur la tamit. waaw pare jaar say fan si ñëpp ñoo xam dañ la doon dégg nga ñëw leen nuyu. di saafanteeg ñoom. nekkul làmb na nag ñun fii lañ doon ñëw di reer di jënd dibe yëpp xam nga waaw ah. ndaan suñu ndaan la xam nga donc xam nga nekkul làmb moo ñu boole quoi parten làmb donc mu neex ak mu naqari yëpp dañuy ñëw ànd ak ñoom parce que ba muy neex dañu ñëw ñu ànd quoi mhm. donc xam nga ñu sant yàlla bu baax mais lan ngay wax ci gars yi mouvement bi ñu def pour bëgg Pikine booloo doon benn waaw Pikine moom xam nga ñu ñëpp ñoo far quoi xam nga ànd Pikine moom loolu dañ koy wax ne mais force la mhm. dañuy ànd par force loolu moom ñu sonn parce que ñu ñoo bokk Pikine ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mhm. ba pare coow am na fii quoi problème problème amul coow mu am na mais problème amul quoi comme li ñuy wax làmb làmb dafa bëri coow mais bëri problème dafa bëri coow mais bëri problème ñëpp ñoo far kon pare ngeen pour doon benn bloc non dañuy loolu par force la contact booy ñëg Ama Baldé contact même bu dul loolu dama ne Pikine pour ñu ànd force la parce que ñoo dëkkandoo ñoo nekk ay frère ñëpp deret Pikine daw si ñun donc pour ñu ànd loolu c'est forcé foo ñu ànd quoi parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu am benn problème tey wala suba ñu yëpp dañu ànd quoi loolu moom bu jaaxle quoi benn exclusif la quoi yéen da ngeen lii da ngeen see yem da ngeen doon romb yem booy ñaa nekkul làmb moo tax muy ñëw seet si. waaw nekkul préparer combat mooy tax mu ñëw duñ seet nekkul après combat tax. kii suñu frère la. ñooy nekk chaque jour dañuy déggante di gisante tout le temps. Mm-hmm. di jëflante di waxante lu baax. Mm-hmm. kii doomu Pikine la. Mm-hmm. dëkk Pikine indi ñu façon victoire bu nekk. Ah. bu ngeen seetloo défaite bi moom la naqare mais ñun naqare wuñ ndax def na li mu waroon def lépp. moom moo moom la arbitre ba sa prix ne prix contre Modou Lo arrière. xeex xeex bu assuré mais bu leen fàtte ne nag. dernière bi yàllaa ko moom yàllaay joxe dafa neex victoire mais kii dañ ko ñaanal ci kàttanu yàlla dina indi roi des arènes. mais mais eh, Badou booy. rek <laughs> digg rek. <laughs> dawul topp naa la mais nit ñi ñëpp nag wàllu si benn lañ àndal de xamal loolu de. luy loolu waaw mooy baax bi waaw. avec avec expert. mooy baax bi de mais ñaar lu mu la def bu for bay. avec Papis noonu la demee de. ah ñaar mooy baax bi waaw mais lu mu la def bu for bay de. mais ñaar tamit ginnaaw bi teraanga yi nga xam ne tamit yaa ngi Modou Lo roi des arènes jox na la ko muy li ci mel ni pare lu or jox ko sa ah, jabar jaral suñu papa dégol ndax papa ji moom yaakaar naa ne maa ngi yow ñoo bokk muy suñu maara si kaw wul maara si kaw waa ndaan kontaan nañ waaw waaw moom moo moo moo cher bi loolu lépp ñoo ko bokk espoir rek xam nga waaw te ñu tamit dañ fa demoon pour rappeler suñu contrat parce que contrat lañ nekkoon ñu tam ñu defoon ay teranga lépp rafet nag waa espoir rek la moo ñu boole bëri nañ jeex na xam nga ni may wax rek bu jeexee jeex na quoi loolu moo naaj quoi. naan nag naan dañoo am seen jigéen. Pape Sarr Pape Sarr waaw ah, loolu moom amul solo te ñun ñëpp ñoo far. loolu dafa leer loolu dafa leer. lépp Pikine la xam nga ñun moom suñu gën a ànd te jàmm lañ sekk ak moom moom la ñu mës a sekk ak moom. waaw noonu la quoi Pikine moom. ñun ñëpp ñoo far quoi. waaw jàmm rek moo mës a am te jàmm mooy mës a am suñu diggante. moom mi fu ñu tayee respect ak jàmm rek lañ sekk ak moom. musul wax ni musul bu mës a wax ni boo ñaa sekk na leneen lu jàmm ak waa Cégep Guinois yëpp quoi. ndeysaan boo tax ba nga ñëwee fi fekk fu ñu dajee nuyoo jaamu. loolu rek moo nekk suñu diggante quoi dara newul suñu diggante ñun ñëpp ñoo far quoi ñoo bokk ndey ñoo bokk mbaay waaw comme li ma waxoon rek sama frère Ama mos naa ko wax ñuy tooyante ni ma ne ko dañuy ànd rek wala ñu bëre quoi ah. waaw comme mënuñu bëre nag il faut ñu ànd waaw dañuy ànd ñëpp ñoo far quoi ñu fekk nañ la fii ñu ngi lay nuyu day jox sa wàcc waay quoi suñu grand nga jàmm rek moom day sonn ci Pikine moom day sonn ci ah, day sonn pa booloo bi Pikine yow yaa ci yaa badu da ngeen ci war a dox jàmm ci booloo Pikine bi yéen yéen fii ay grand ngeen yéen nag yéen ñoo far yéen moom xam jàmm rek moo nekk seen diggante. yow suñu grand la. Badou suñu grand ñu lu mais tamit da ngeen di sonn Badou mm-hmm. da ngeen di sonn la. parfois ñu wax leen ci lu leen neex. tey muy yow muy moom. jublu woo leen ci lu dul. dafa dafa doon benn. waaw surtout yow chaque jour yaa ngi ciy wax. waaw yaa def yaa ngi ciy sonn. ndax xam nga loolu baax xaas tamit xam nga loolu baax Pikine parfois nii am na ay affaire yu fi amoon ci ginnaaw yow dañ ci doon dox pour ñëpp bekk benn ba du dugg ci dox donc buñ tollee ba fii tamit tànk yooyu ngeen teg ah, wala leen ci dellu ginnaaw parce que doomu Pikine ngeen ngeen ñëw fu leen neexee làmb ngeen am jot ñëw wala ngeen ñàkk dem jot mais tànk bi ngeen teg pour Pikine doon benn loolu wala leen ci teg teg tànk parce que ñu ñëpp ñoo far waaw yéen ñu ñëpp ñoo far maa leen di bëggee di leen ziar jàmm ci yéen ñu ñëpp ñoo far jàmm rek inshallah du ma tegg si làmb 1986 laa seetaan dégg nga. waaw Balla Beye numéro un. seetaan ko. dégg nga seetaan Balla Beye Lang Sané papam di sama xarit man. du dëgg. kon du ma dem ba egg fii. ma ne damay tegg sama tànk. barke yàlla. booy ñaar def na lu rafet quoi. parce que dafa ñëw. non balaa daa am lu may rek. yàlla xam na ni man Cheikh Lassène Saad mooy sama sëriñ. dëgg la xayaat. barke Cheikh Nassir Sarr bu xaw ma ne woon presse bi def ñu. dëgg la te gisuma leen woon. gisoo leen woon damaa ñëw di waaj di nuyu Pape. waaw presse bi ñii ñëw. waaw donc hasard amul. dëgg la ma ñëw tamit fekk fi Badou. waaw dëgg la ñëpp xam sama diggante ak moom ma fekk Pape Sarr ñëpp xam sama grand. waaw donc hasard amul. yàlla moo dogal lii yàlla dogal dañ ko xam ñu ñëpp. wallaay dëgg la ñu xam ne ñu ñëpp ñoo far. wallaay amuñu benn problème. dëgg la jàmm lañu seeg dañu bokk ndey ñu bokk baay. lii mu def nii nii ñu def am nañu ay defet dëgg la mais dafa am lu bari lu mu leeral lu mu tontu mooy Boy Niang yoroon ndam bu ko yoroon defal ko boppam Ama yoroon ndam bu ko moomoon defal ko boppam ñëpp yàlla moo yor ndam moo koy ko neex suñu borom dégg naa problème Pikine rek na ko sax ci combat yi bu ñu xoolee rek ñu xam ne kenn yorul ndam moo yor ndam mais bëgg naa bëgg naa ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. waaw yow sunu grand nga koy sonn ci Pikine. waaw damay gis nee naa leen fu ñu laalee Pikine ma gis nga def live wala nga def TikTok tontu Pikine. waaw te loolu dafa am solo te ñun dañ ko xam ci yow bu baax. mais yéenay sunu ñu gisee ni ngeen di doxalee rek noonu la ñuy doxalee. dafa ku nekk joxe cër sa morom. waaw ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay. waaw la ñuy jaar. waaw incha allah bu soobee yàlla loolu léegi fii xuloo amu fi. jàmm da nga fii xuloo ba ay jàmm magal bu ñu ay a jox loxo. dama ne la fii dafa yéeg ci Eumeu Sène dafa dem jëli ci roi des arènes. fii ndaayaan bii ma yéeg ci kaw moom muy bëreeg Sa Thiès Ama Baldé di bëreeg Papa ndam loolu yëpp. tey ñu booloo boobu noonu ñun ñëpp ñu bokk ko ñu dem ma ñëw ànd ci sonn ci ba yàlla may leen ñoom ñëpp 2018 boobu yàlla may leen ndam kon nag loolu noonu ñu defoon loolu laa bëgg ñoom ñu defaat ko incha allah jërëjëf dégg naa la kay kay kay kay am na lu ma bëgg a wax de. waaw doo dee dafa nag am na lu ma bëgg a wax. Boy Niang man man man yaay suma sàmm géejewaay laa dëkk de waaye yaay sama mbër maa la bëggal sama bopp dara jeey laa illah ñu bëgg na sëriñ baaram fale bi ngay bëre maa ngi Dakar combat boobu jooy naa ko jooy naa ko trop dëgg noonu la parce que man man man man victoire laa déggoon ci waaye yàlla mooy may ndam. mais sama gars yi kontaan naa ci yéen. kontaan naa ci yéen parce que ba ngay daan Balla Gaye. Pikine dafa nee xool. kon tam nit da ngay nangoo defet. dégg nga beneen bi leneen bu ñëwee. ñu am nag.

waaw ah, gis nga moo dem Maguette. waaw di saafonteeg am di jàmbur di nekk lu naay ah. sax di saafonteeg am di jàmbur di Abdé nañ jéeg ah saafante gaañ ba pare. di saafante gaañ yi ànd di jàmm yeeg aar ak yàlla moo gën. yàlla lu mu def rek gën. barke Sëriñ mooy daw si moom barke Alxuraanu Karim lépp ba pare. nee na nee na wan expert rek la ñuy topp. wan de. dégg nga mooy naa mooy ambassadeur bi de dégg naa mooy ambassadeur bi. Ah. waaw Ahmed DC mi naar bi lay xaar. naar bi lay xaar ah. mais. <laughs> <laughs> yaa doon na naay ah. sax. ba dafa benn wax bu am solo. waaw te bari pourtant nee na lamb ji dafa ñu àtte. waaw lii def ko mu daan non wax na ko nee na ma man lay daan def ko. non dëgg neexul. ma ni dafa naaj. Elmo bëree ba pare dugg say biir fans. waaw ah, dëgg la ak ñoom képp koo xam te ni daf lay sonnal. te xamoo ku lay sonnal nga ñëw jëflante ak ñoom. saafonte amar am farat Amadou Bello yaa ngi fàttali yor yor yàlla lool ay borom xol bu rafet nga. ndeysaan ndeysaan. nice. kon damay vidéo quoi. damay vidéo. léegi mu ne comme loolu de man maa ko waral ak yaa ko waral ak mbër mu ne nañ ko fekk sa xol sa xol libre mbër bu fekkee lu baax la bu fekkee lu baax la mbër am man loolu maa ko gën naa bu fekkee li ma la wax muy sama fekk sama tal barke Mamadou ni ñuy dëkk leer na ma ni man barke Seerafaal ak sama kitaabu naa ko ci loobe lu ma doon di nga koy indi fii. incha allah amiin amiin amiin. parce que la moo ko indi. amiin amiin yaa ko faam. barke moomu sama ay dem bagal. ñu ngi dem ndeysaan booy jéeg saa xonte naag fan si jëflante ah, képp ñëpp ñu ñu mu war a jëflanteel ndeysaan mi mi ana sababu ndaw ndeysaan mi ngi saafo teg am ni jàmm yi ma waral lépp nit ku baax la bàyyi leen ko mu dem nag jërëjëf doy na bàyyi leen ko mu doy bàyyi leen ko mu dem doy na démb. mais wu ma. bàyyi la ko mu dem doy na doy na. et nag yow kontaan naa de. infusé infusé. ñoo baax.